السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي رأسنا بوكي طالبي نجاس من النيو بعد نسيارة دفع أمرو بوكي ليرا رك تي خيو خيو بيغا خانمو خيوان Yes. muy xew-xew bu rëy ci man ndax xew-xewu yoon yoon wi la li ci am solo nag dama bëgg gën a leeral li li li ko andi li ko indi moo doon dafa am ñu ñëwoon fi man jaaxle lool ci diggante bi nga xam ne Cees toll na ko ma leen loolu yëfi mbooloo la ngeen dellu gëstu mbooloo gëstu taalibe yi bu fekkente ne gis ngeen ku leen doy ngeen di si wax ma ko ma joxe ndigal loolu bi amee ab diir ma yónni sëriñ sëriñ Moustapha mii mu sëriñ Abdou Lakram ne ko demal ma ca mbooloo ma laajal ma leen ba xam la ma leen waxoon def nañ ko la déet ndax am nañ ko leen doy wala amuñ ko loolu rek moo taxoon ma jox sëñ Moussa mi ndigal yónni ko ne ko demal laajal ma mboolal ma loolu bu loolu amee nag xew-xew ba fa am am fa kon mënumaa xam la ko waral lu mu doon ma xam la waral xew-xew ba la ko waral lu mu doon lafa fa xew bu bu xewee du ma xam lan moo ko waral loolu nag mu doon nekk nekk tooñ gu tooñ sëñ Moustapha buñ tooñee sëñ Moustapha tooñuñu ko man lañ tooñ man it nekkuma buñ ma tooñee sëriñ bi lañ noonu rek la mbir mu demee tooñ gu metti la ci man ndax noonu rek la demee nañu def sëñ Moustapha toroxal ko ci digg adduna yañ ko yañ cee def yëpp ñu def ñu def ko ko loola mbir mu réy la ci man ci liggéeyal sëñ Tuubaa rek laa nekkoon kon bu ci loolu xewee rek borom yoon bi rek lañ tooñ ñun ay taalibe lañ doon yoo xam ne dañu doon bëggoon a nekk ci leen war a nekk rek nekk ci liggéey bi ci biir ak ci biti euh, la cee de des rek moo di nanu nanu doon lay gën a góorgóorlu ci lu demee noonu ak ci ci mboolem yoon bi nun ñëpp nanu gën a góorgóorlu ci wattandiku yu demee noonu def loo xam ne boo ko defee ba noppi mu nekk tooñ gu rëy te woo ko fenn tegoo ko fen loolu ñun ñëpp maa ngi maa ngi maa ngi ñaan tàmmale ko sama bopp ñun ñëpp nañ wattandiku yu demee noonu ëllëg si biir lu mu ci mën a doon lépp mën naa nekk mën naa mën nañ koo dox ci taalu bi ci yar teggin ci waxtaan ci diisoo ba leen ci bëgg ci defar nu am ca tawfeex amee ko nañ ko bëggee loolu lu mën a nekk la bu nu rek te te nekk ci leen war a nekk wax lan war a wax da def lan war a def bu ko defee rek lu nuy lu nuy defar mën nañ ca am tawfeex ba lépp defaru nu amee ko nañ ko bëggee asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw xew-xew yooyu nga xam ne moo amoon ci Thiès ci kanam Serigne Moustapha mbake Lakaram mi nga xamne Cheikh Mouhamadul Mountakha mbake moko fa yebaloon te ñenn ci ay talibé jëfé fa jëfin go xamne andut ak talibé te tégginéwul ci cadre yi nga xamne Serigne bi doon nako yëkëti ci turu khalife général des mourid kon Serigne Moustapha mbake Lakaram def na déclaration momit doon ay cadre di jéggal bép talibé bo xamne amna no ci taxawé akit bép talibé bo xamne waxna ci lo xamanteni war ko wona wax kon ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Moustapha Mbacke Lakaram. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi mbokki yoonu murit wépp mbokki uma islaami bépp mbokki àdduna bi maa ngi jégglu tey jéggale looloo tax ma jiital alhamdulilahi rabbil alamin dafa fekk ne waxtu wi démb maa ngi Thiès teewaloon fa sëriñ bi ak Cheikh Mamadou Bassir mi suma wet ndax moo yore kàddu gi te nekku fi ma teew woon jotali kàddu gi ma sëriñ bi yónni woon ba la ma ca fekk fekk ma ca la ma ca fekk nag eh, mënoon naa ku ma xam-xam ne mën na maa fajal sama bopp lu ne ci wàllu àdduna waaye nag sama bopp sëñ Touba dama ko gënal te bëgguma sëriñ bi am benn fitna ci xolam ak ci xelam walla ci sama jëmm ak fi ma teg moo waral ginnaaw bi mu waxee ci biir ba noppi la mu wax ma ànd ak Cheikh Mamadou Basir jéggal mboolem koo xam ne daloon na ci sama kaw wala mu xëpp ma suuf wala mu mu dóor may doj wala fitna ja ci am yépp jéggale naa ko ngir jëmmi sëñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha waaw na mu julli na ko ñëpp xam képp ko aju ci man ba mu jéem a fayantoo ni ko sëñ bi afawtu andil ax daay turan jooju rek nañ nañ koy nañ ko nañ nañ ko wéyal ngir jëmmi yàlla rek waaw nga xam ne loolu daal sëriñ bi moom laa bëggoon a wax di la ko seereel di ko seereel mboolem bokki taalibe bi fi toog xam ne eh, jéggale naa ci nit laa rek koo xam ne ku soxla njëgal la waaye moo tax ma jéggale ngir ma Cheikh Mahamadul Muntaxa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu